أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأخد وتنفرج به الكرب وتهدى به الهوائج وتنال به رهائب وحسن الحواتم ويستصى الحمام بوجه الكريم والأرزاق في كل لمحة ونفس بعد كل مهلوم لك تينو ñu أكيين comme ni nga koy faral defee gannaaw ba ñu nuyoo ñëpp euh, di leen rafetlu ci di rafetlu lu baax ci topp gi nga xam ne yéen koy topp suñu ay émission tey nag ñu indi lenn ci njariñu yi nga xam ne imaam Xasaali dañu wax ne maaxasalil futuux wal baraka la nga xam ne jë maanaam jotee na ci euh, ubbeeku ak barke mooy yi nga xam ne ay tur la euh, yoo xam ne dañ koy liggéey si juróom fan nga xam ne bés bu nekk am na lenn ci tur yàlla yi loo war a liggéey euh, nga xam ne moom Serigne Touba fonkoon na ko bu baax ku ñu xam na tam ci yoonu tasawuf nga xam ne Serigne Touba téeram ba mu bind muy masaalikul naan da dégg fu mu waxee xaal rek li si ci jublu mooy imaam Xazaali imaam Xazaali nag liggéey na lu rëy ci tasawuf dañu wax ne la ko mayoon barke maanaam ca la mu jële woon barke ak ubbi ko ba nga xam ne ñëpp gis nañ ko teg si bët maanaam lii ñuy secret bii ñuy joxe mooy secret ba mu ba mu ba mu yoroon doon ko liggéey waaw nga xam ne daraan def bësu àjjuma. da daan liggéey yaa allah mil muy junni ajam bu nekk dafa daan liggéey nga xam ne yaa allah mooy ismu zaati waaw mooy ruuxu tur yëpp tur yàlla ñu gis yëpp allah mooy seen ruux moo tax dangay dégg heure bu ñuy commencé asmaa xusnaa sax allah rahman rahim la commencé nga xam ne allah moo moo moo moo féete kaw tur yëpp tur yëpp ci leeram la ñuy dund mooy ismu zaati waaw mooy ismu zaati moom moom Allah moo féete kaw moo moo moo léegi nga xam ne bésu samedi mun yow sabti euh, yaa ngi zikar laa ilaha illallah nga xam ne mooy kalimatu xaq mooy kalimatu shahada mooy kalimatu euh, tawhid ndax laa ilaha illallah ki dugg ci diine moo la ciy dugal mooy itam tàqale dëgg ak neen mooy tàqale jullit ak yéefar moom laa ilaha illallah mooy kalimatu tawxid mooy kalima bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a nekk muwahidin kennal boroomam ci lépp ndax yàlla kenn gi mu nekk kenn nekk fardu nekk waaxit nekk axat yàlla ku wér la ci nguuram maanaam ku wér la koo xam ne soxlawul ministre ci nguuram soxlawul député ku wér la koo xam ne wéet gi mu wéet euh, dara wéetaloo ko waaw koo xam ne la kenn la kenn maanaam capaaculli la nga xam ne moom euh, lépp loo xam ne am na tàmbali rek momé lam la mom rek moo amul tàmbale moy eusel moy ëbbat moy ëwal moy aaxir moy zahir moy batin yàlla ci bopam ku ku fi nek la xam xam-xam xam jitu lépp bobu dara amul bobu yàlla bindul malaika bindul asaman bindul arash bindul kursiyu bindul lawhul mahfuz bindul xalam bindul dara mu nekk loo xam ne kenn xamul app bi kenn xamul kañ la kenn xamul kañ la tàmbali kenn xamul tam fan la yam nga xam ne mooy mooy mooy ësali mooy ëbali mooy ëba mooy ësaliya mooy ëbadiya te dara amul dara loo xam ne nii moom rëcc na ko moom suñu borom subhaanahu lépp rek moo ci teg bëtam bi jaxlu ma bayna aydihim wa ma xalfahum la yuhituna bi in dara amul dara loo xam ne rëcc na ko lépp la peeg nga xam ne bésu dimanche mu yowmal axat yaa ngi yaa ngi zikar yaa xayu yaa xayu yaa xayu mbokk ci tur yàlla yi nga xamante ne dañuy wax ne ismul azam la nga xam ne yonent saa salaam bi mu nekkee maanaam am na xare ci xare yi nga xam ne day tar ba nga xam ne day xam ne fi ne mën na mbala yaa rek fi sës ngir ñu mën cee génn dangay gis day bëri di di di sujjóot di wax yàq yu yàq yu ngir suñu borom dinañ jàqare la xam ne jàq na ko nga xam ne yàq yu yàq yu dafay dina jàqare day dina jàqare te lépp ci ci lay dund maanaam ci xayu lay dund lépp loo gis rek xayu moo koy dundal muy yàlla lépp loo gis tam ci xayum la taxawee ci la ci la ci la mën a mën a mën a mën a mën a nekkee maanaam xayum lépp lu taxaw lépp lu sax lépp muy asamaan muy muy muy suuf xam nga asamaan moom ne dara tëyewu ko xay xayu moo ko téye suuf tam maanaam bu rasul xayu moo ko téye xayum ci la garab bi taxawee nit suy dox sax xayum lay dox xayum moo koy doxal nga xam xam ne nit ki tey su taxawee mën a mën a jub xocc du weng benn côté ngelaw du ko ëf xayum moo koy moo koy moo moo moo taxawal loolu waaw nga xam ne euh, bésu dimanche bi yaa ngi def yaa xëyu yaa xëyu mille nga xam ne dog yi ñuy def yëpp benn bu ci nekk mille lay doon ba juróom-ñaari fan nga xam ne yow ma lus nay nii muy bésu lundi yaa ngi def la hawla wala quwwata illa billahi al azim mille nga xam ne loolu tam ci ndigal li nga xam ne yoon saa joxe na ko nit ki war koo saxoo nga xam ne képp koy def rek moom kanzun minal kunuuzil janna la ba pare day dàq euh, ñàkk nafil nafil fàq dafay dàq ñàkk képp koy def doo ñàkk nga xam ne yow ma sula saay tu salla ala nabi sallallahu alayhi wasallam muy bésu wa sallam yi ñu jullee ci yonent ala muhammadin wala alihi wa sahbi wasallim tasliman julli la ci moom allahuma salli ala muhammadin nabil ummi wala alihi wa sahbi wasallim allahuma salli salaatan kaamilatan wasallim salaaman taaman ba mu àgg julli la ci moom allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima uxliha mooy saati fatihi ba mu jeex julli la ci moom salaatu ibrahimiya julli la ci moom nga xam ne boobu sax moom daanaka téere sunna yi boo dem ci ngay moom nga koy fekk nga xam ne boo julli tam bay toll ci taaya yaa ngi wax allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidun majid xam ne saatu ala nabi képp ko def inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima képp ko def yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafay julli ci yow te julli suñu borom ci jaam bi moom yàlla rek moo xam julli googu nu mu war a demee nit ki mën ko xiyass ndax julli nit xam moy kabar si jot ruko sëlmal te suñu borom jul manam julli gi muy julli si doomu adama bi mom rek mo xam gan julli la ndax julli la wax rek te yalla julli ci yow lolu magayam ak euh, darajam ken pegu ko motax kon beureu julli ci yonent tax nit ki buy ñaan ñaan gi gaaw dana waral nit ki am barke dana waral tam euh, lépp loo xam ne ni yaa ngi koy bëgg sa borom rek nga am ko incha allahu taala nga xam ne yow mal arbaa muy bésu ajum bésu àllarba yaa ngi zikkar astafurlah al azim astafurlah tam ci ndax tuub moom dafa bokk ci maqaamaat yi nga xamante ne boo xoolee aadama alayhi salaam bi nga xam ne suñu borom génn na ko àjjana mook xawa la nga xam ne moo tax suñu borom jéggal ko mooy tuub mooy muy tuub dellu ci borom borom bi subhanahu wa taala kon tuub bi tam da ci daal dikk nga xam ne kon lii bu doon tey mënu la dañ naan mënu bu riche la lépp da ciy ñëw mooy yoon wi ñu indi tey nga xam ne yowmal xames subhanallah subhanal azim subhanallah al azim wa bihamdihi loolu tasbixaat la nga xam ne tasbixaat yàlla lu mu bëgg la digal ko yéen saa salaam ne ko na ko wax jullit ñu ñu koy def nga xam ne moom moo tëj juróom-ñaari fan yi lii la imaam Xazaali rahimahullah jotee barke bi nga xam ne suñu borom mayoon na ko jotee ci itam ubbeeku kon képp koo xam ne yaa ngi koy def rek suñu borom dana la yenkewal loolu damay wax tam ni nit ki bu fekkee day ut dara ci yàlla du yàqamti te képp koo xam ne da ngay dégg mu ne damay wér di nangam jëg saak teg ko jëlaat lii jëg saak teg ko jëlaat lii loolu yàlla tax koo jóg te lépp loo xam ne ki day koo jóg du ci am yool bu màgg du ci am ngërëmal yàlla maanaam jëf ci dafay nul lépp loo xamante ni nit ki da koy def te yàlla tax day sax te maanaam yiw rek la ciy jëlee yiw la ciy jële ngërëmal yàlla ciy jëlee fajuk aajo la ciy jëlee ñu indi lii nag nga xam ne lu wér la loo xam ne ñi xam dëgg te xam turu yàlla xam nañ ne lépp a ngi ci biir kon tey ñu indi woon ko doon leen ko baaxee di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala képp koo xam ne saxal na ko lépp loo xam ne bëgg na ko yàlla na ko ci gis te lépp loo xam ne bëgg na ko dina ko ci gis incha allah di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala